li nga xamante ni moo doon suñuy tànk fii ci Dakar Actu mooy lancer message bi nga xamante ni tey comme dañoo nekk ci jamono jamonoy Covid 19 di coronavirus ñuy dégg jamono bu nekk nit ñi di sensibiliser nit ñi ci ñu toog seen kër. te xam nañ ni ñi nga xamante ni ñoo ngi leen di toogloo seen biir kër ñoo ñooy ñoo ànd ak seeni xel mais ñi nga xamante ni ànduñook seen xel te nekk ci mbedd mi tey bu ñu bëggee ñu toog seen kër ana nan la ñuy def. kon loole état kay moom moo ci mën a jóg di interpeller ki nga xamante ni moo di président Macky Sall yàlla feebar bi di coronavirus mënuñu koo jëlee ci mbedd mi lu dul ni dañoo jëlee malade mental yi ci mbedd mi ndax. malade mental yi fitna bu jéggi dayoo la ñuy dund naam déggaguñ kenn ci ñoom am na tawat bii di coronavirus ma ne dañ leen a testé wul mais peut-être bu ñu leen testé woon dinañ ci fekk koo xamante ni ndax li ñu nga xamante ni moom la ñu wax ni nit ki su ko su ko defee maanaam tawatu coronavirus bi dina nekk ci moom waaye malade mental bi ana kan moo ko defalagum test. ndem ñun ñoo leen doon fekk ci mbedd mi di leen sang te dañoo tere lépp loo xamante ni ab daje la loolee tax association taxawu ñu wéré di di togg ay barkelu yu yaatu dem di wër malade mental yi ci mbedd mi ñu nekk di leen jox ñu te yàlla rek tax bu Sénégal demee ci confinement total yàlla bu ñu fa egg malade yi dinañ fande ci mbedd mi ndax nit ñi nga xamante ni ñoo leen war a jox lekk bu dee tëju nañ ñoom ana fan la ñuy dundee loolee tax ñu bëgg président Macky Sall ak ministre de la santé euh, monsieur Abdoulaye Diouf saar ñu ngi sàkku ci yow naam yaa ngi def liggéey bu mucc ayib jëmale ko ci wérgu yaramu doomu aadama yi waaye gessul ñi nga xamante ni ñooy dund ci mbedd mi nga xamante ni seeni mbokk dañ leen a abandonné sànni leen ci mbedd mi ñu jaaxle lool bu dee bëgg nañ daal dëgg-dëgg xeex tawat bii di coronavirus il faut ñu fexe jële malaat mental yi ci mbedd mi internet leen ci hôpital yi ba euh, ngir maanaam bàyyi leen xel bu baax a baax ndax fii ak ñu ngi ci mbedd mi jangoro bi di Covid 19 du fi gaaw joge liko fi jele dal moy jele malade mental yi ci mbedd mi liñu bëgg rek mooy ñu jele leen ci mbedd mi. fan yi ci ginnaaw ñu ngi doon waxtaan fële ci ministre de la santé ngir jël malade mental yi yobul leen ci hôpital psychiatrique lu melni dalal xel bu Thiès ak lu melni hôpital Thiaroye yi utal leen fa ay tante mais loolu buñ ko defee bu feebar bi jeexee après nu ñuy defaat jëlaat malade mental yi sànni leen ci àll ba li nu bëggoon rek président Macky Sall jëlee malade mental yi définitivement ci mbedd mi te ñu gën a sensibiliser nit ñi ci tawat bi nga xamante ni mooy tawatu wéré di xel lépp loo xamante ni nit dana ko jëfandikoo ba mu yóbbu ko ci monde boobu nañu ko bàyyi ndax ku dof rek ci mbedd mi ngay mujj te fitna bu metti ngay dund.